mi ala millati rasul wa manhajil qadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e, ginnaaw bu ñu siyaare kilifa kilifa yi siyaare kilifa yëpp e, te ñi nga xamante ne bii ñoo taxawee tànki jàmm ñëpp ñu leen di ñaanal fanu gudd ak wér ak ñu gën koo tal waaw ñuy xalaate leneen ci loo xam ne luy jur safaan la mbaa luy jur ak ay ak ay xol yu biijoo wala yu demee noonu ñu ñaanal leen ci ku tedd ngir mu defar seeni xol ba man di yéene lu rafet di ko wax di ko def ñu ngi koy ñaanal sunu bopp di ko ñaanal ñëpp e kàddu yi dafa mënt ñàkk du caagee na bàyyi jaan ba mu jàll nga topp topp ca wati fay dóor déedéet du lool dafa am yu fi xewoon ci mois de mars bi am ci ñi ci ñàkk seen bakkan am ci ñi ci seeni alal yàqu moo xam ñu dëkk ci réew mi wala bitim réew yooyu yëpp xewoon fi ba jàll ñun ñëpp nu war a takkuwaat waaw ngir yu mel noonu bañatee xew ma jàpp ne nag li ci gën a gaaw ngir faj li nu bëgg a faj mooy ñun ñëpp nu wëlbatiku xool joxoñu ku tedd ki jamono bu nekk dama koy faral bi wax am na ñu nekk ci nguur gi nekk ak raïs bi président Macky ba noppi tey gëstu mbindum ku tedd ki am na ci ay benn benn ku tedd ki du càggi na julleeg woor rek la jàngale déedéet ak natt asaka ak murum koor déedéet maanaam jàngale na nooy dunde ak sa njaboot nooy dunde say dëkkandoo noy dunde sab dëkk nooy dundeek sam jàngal nañu façon gouvernance jàngal nañu politique de vérité doon naa ko wax ci xisbul xaq rajowtun xiyaadal xisbi lillahi wahdahu bi xatti lazi yuhyi bihi xayru islaami daan naa ko fi wax léegi ma jàpp ne doon na rafet doon na gën a rafet ñi nga xam ne ñoo nekk président de la république ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'administration te nekk ay aspirant véridique et intelligent maanaam murid saadiq wa nabil ñooñu ñi nga xamante ni bii kii di njiitul réew mi di président Macky lépp lu mu xamul ci mbindum ku tedd ki am na ci benn benn yuy liggéey ak moom yu ko xam la a rafet ñu ne ko président kat dalaa il yi yi nga xamante ni bii ci la ñuy tegtaloo yi nga xam ni mooy doctrine bi idéologie yi nga xamante ne bi dañu koo jëggaani woon jot na ngir ñu xool lan lañu ko tedd ki wax waaw ki idéologie ak doctrine bu ñu ko ko waxee leeralal ko ko wax dëgg yàlla ak plus la plus la boo xamante ni bii bu ñu ko jëlee au lieu que ñu koy def plus képp yam ca déedéet dañ koy diviser en deux benn moitié bi ñu def ko dalil waaw def ko muy seen base de référence bi ci des ñu def ko mu muy muy seen avantage hmm? muy émerger ci le kii fonctionnement du du du kii de notre gouvernement hmm? et le chef de l'État maanaam loolu moo gënoon a rafet waaye bu fekkente ni ñi ngi naan idéologie dañoo échec yem ci wax ji képp waa bu ñu échecgee ana solution bi tey solution bi mi ngi ak ñun amara ni rabbi bi an usarriha bi anna mi malazun wa mabzun fa man arada alxayra fi kilta yi daaray ni falyalus bii loolu ku tedd kee ko wax français bi wax nañ leen ko ba tey Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier de moi dafa jot dafa am ni ñuy dimbalee xalifa bi spirituellement am ni ñuy dimbalee président bi temporellement wax dëgg yàlla lu ci nekk dafa metti njiit dafa metti njiit dafa metti te wax dëgg yàlla bu ñu nangu bu ñu nangu voisin yi ah région bi di ñu ree Sénégal Afrique dafa war di roy ci Sénégal adduna bépp ñoo war di roy ci Sénégal loolu du mën a nekk mukk mukk mukk tànk li ku tedd ki wax defuñu ko waaw bonne intention bonne parole et bonne action loolu nañu ko jël mu des lan mooy wàllu intixabaat maanaam élection président Macky comme moom majoritaire à l'Assemblée nationale na ko anticiper élection yi bu ko anticiper day am droit bokk na ko anticiper def élection générale waaw libéré ñëpp comme neex bokk kum neex bokk waaw moom fi mu toll nii bu jëlee bonne intention bonne parole et bonne action rek mettre ko en place wax ko ñëpp wax ko Sénégal yëpp au niveau national et international ñëpp xam ni kat ñun am na doctrine bu bees boo xamante ne bii moom li ñuy def cëslaay bu ko defee rek sowee réew mi sowee lii képp la waaw ay marche duutu fi am ay gaz lacrymogène duutu fi tàkk yii yëpp dara duutu am waaw wa illa bu fekkee mënu koo anticiper mu def mu def gouvernement d'union nationale <laughs> gouvernement boo xamante ne bi ay technicien ay liggéeykat la ñuy doon du doon ay politicien hmm? bu ko defee rek réew mi sowe dina sowe réew mi sowe waaw wax dëgg yàlla jamono bu nekk ak la mu laaj waaw léegi nag ñi nga xamante ne bii ñooy marche d'accord ci bi moo leen ko may constitution bi moo leen may marche démocratie bi moo leen ko may waaw de toute façon na a am waaw ku tedd ki moom il est pour la non violence waaw ñun ñi nga xamante ni bii wax dëgg yàlla ñoo ni xisbul xaq tama soso ci sëriñ Saliou ak sëriñ Mortada wax dëgg yàlla non violence la ñuy wax waaw waaw léegi ñuy def ñi nga xamante ni bi nag comme ñoom dañuy jàppaati ni sama classe gi nga xamante ni bii nee nañu dañ leen war a jàppee nañu gaaw jàpp ñi ñuy jàpp ñi ñuy jàpp nit ñu bàyyi leen waaw ñi ñu war a jàpp nañ leen jàpp ñi ñu war a bàyyi ñu bàyyi leen jàmm ni ñooy waaw man daal loolu laay conseil président bi waaw moo majorité à l'Assemblée nationale année prochaine ci fin année moo xam waaye xam nañ ni fii ay local ak yooyu yëpp teret maanaam fi mu toll nii daal luy jot jot na waaw loolu rek laa ne woon dama koy jàllele te ngeen baal ma àq man nag maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 3 juillet ci Mbàkke Bawol dëkk bi ku tedd ki feeñe te mawdu ba nekk tati mujj tati mujj mooy tem ba waaw tem scrutel la nag donte temporel dina ci dugg itam parce que la cay temporel bi ñoom professeur ñaa professeur yi professeur yi dinañ ko wax waaw dinañ wax ci zaqaafiya wax ci iqtidaa wa ijtimaahiya wax ci iqtisaadiya waaw dinañ wax ci domaine yëpp daal temporellement waaye tati mujj tem bo xamante ne bii daal moom wax dëgg yàlla dama dañ koo war a développer waaw dañ ko war a développer waaw ci sens yépp nag waaw zahiran wa batinan yooyu moom ñu ngi fay jox rendez-vous ñëpp Mbàkke Bawol 3 juillet wa salaamun ala man itabahal huda